laay ji nuy dajal tey ba tey noo ngi ci biir sóoratul baqara mooy tolloog laayay téeméer ak juróom fukk ak ñett sunu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax ne yaa ayuha alladina amanu istaciinu bilsabri walsalaati inna allaha maa alsabirin borom baa ngay del si rek di woo ñi nga xam ne ñoo ko gëm waxoon naa ne la gëm pas-pas la ci xol واي واخ لا سي لامين واي اي جيف لا سي تير اك اي باي في نك بروم بي مي واخ ني استعينوا ديمانديكو لين لو ني ديمانديكو نينا بالصبر تي موي والصلاه اك جولي نخكت ان الله نك الصبر تبارك وتعالى من سن بروم يلا مع الصابرين day ànd ak way muñ ñi tomb ba jëkk ci taxaw seetlu yi ci laaya ji moo di ne muñkat lu màgg la waaye lu mat a xam la dafa am nag ñetti xaaj am na muñ topp yàlla yi ba mën koo def niñ ko santaane waaye am na muñ balaa yi ak jafe-jafe yi ba mën a am tuyaaba yi nga xam ne moom lañ ci digge waaye am na it muñ yu neex yi nga xam ne dafa daganut ndax nga ba <laughs> a mucc moom itam kon xeeti muñ yooyu yett yooyu muy muñ yàlla yi ak muñ muñ mooy yàlla yi ak muñ topp yàlla yi ak muñ balaa yi jóge suñ borom yooyu su dajee ci nit ki kooku muñ na ñaareelu tomb ba mooy alistiaana dimbandikoo lay cosaan ci dimbandikoo day mooy dimbandikoo sun borom tabaraka wa iyaaka naabudu waaye bu dee nag li ngay dimbandikoo la nga koy dimbandikoo lu man la loola dara wàññiwul ci daal mën nga ne xalima gii laa dimbandikoo ngir bind waaye muñ nag laa dimbandikoo ngir mën a jànkoonteeg balaa yi ak jafe-jafe yi ak gàllankoor yi ñetteel ba moo di julli gi nga dafa mat mel ni mu mel ci ay ponkam ak sartam julli googu yi dafay jokkale nit ki ak li nga xam ne mooy ngërëmul boromam julli googu daf koy jàngal ñàkk solo gi nga xam ne àdduna da ko solo su ko defee njàqare ci àdduna yeeg métit yépp julli da ko koy fàtteloo day tax mu sedd ci moom guy yi ndax kat julli su dut loolu it tanha anil fahshaai wal munkar la borom bi tabaraka wa taala wax day dox diggante nit ki ak ñaawteef ak yu bon ñeenteel ba mooy sunu borom wa taala nee na inna maa sabirin maa jooju nag muy ànd goo gi nga xam ne moom la ànd ak ñoom waxul ne dafa wàcc fii ci suuf ànd ak ñoom di dox waaye daf leen di dëgëral dafa ànd ak ñoom ci tawfiixam ànd ak ñoom ci ndimbalam ànd ak ñoom ci ak dëgëralam loolu nag moom lañu ñu tuddee maa iya sax te loolu mooy juróomeelu tomb bi maa iya xaasa nga xam ne ña koy am mooy ahlu tawfiq ña am tawfiq képp ñoom la ko sunu borom tabaraka wa taala jagleel mooy yàlla ànd ak yow ci ndimbalam ak tawfiqam am na nag geneen maaya goo xam ne amma la muy geneen goo xam ne dafa général dafa ànd ak ñëpp fam ne wa huwa maakum aynama kuntum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen mën a nekk ndax lu ngeen di def mi ngi koy xam lu ngeen di xalaat mi ngi koy xam lu ngeen di wax mi ngi koy dégg kon loola ñëpp a bokk mooy doomu aadama yëpp ak mbindeef yëpp juróom benneel ba fii de suñ ko settantale dañuy gis ne borom bi tabaaraka wa taala mi ngi digal ñi ko gëm ñu muñ kon nag dañuy daal di xam ne eh, gëm yàlla taxul nga daal di dund àjjana fii ci àdduna déedéet gëm yàlla day tax nga am ay nattu nag fii ci àdduna am ay gàllankoor am ay jéem a dox sa diggante fa nga jëm loola moo tax ñi gëm ñi bëgg ci ñoom ñi muñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ashaddu balaa an gën a tar ci nit leen yàlla di teg ak i balaa gàllankoor mooy yonent ya gannaaw ba képp ku gën a dëgër gëm gën a dëgër ngëm da ngay jaar ca loola jël ca sa kon nag ladina amano ji bu mu tax mukk nga daal di jàpp ne àdduna moom day daal di doon jànna nekk àjjana déedéet ay métit lay àndal ak i jafe-jafe yoo xam ne day laaj nga muñ su ko defee nga am résultat ba juróom-ñaareel ba mooy résultat muñkat mooy métit ya day wëlbatiku soppi ko ay tiraanga jafe-jafe ya day mujj soppi ko bànneex yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon eh, jullit bi saa boo xamee ne lu metti dal na ko day muñ saa boo xamee ne lu ko naqari euh, lu lu neex ñëw na ci ay yoxoom day sant borom bi tabaraka wa taala ci mujjug xadis bu def ne walaysa zalika illa lil mumin ku gëm yàlla rek moo ko am mooy koo xam ne day wëndeelu diggante sant ak muñ su xéewal ñëwee mu sant su metit ñëwee mu muñ su ko defee day daal di am la ko borom juróom-ñetteel ba war ñoo xam ne borom bi tabaraka wa taala su dee nattu ab jaamam bi ko gëm di ko teg ay metit du ko def rek cig neen waaye daa am lu ci jublu daa bëgg a far ay bakkaaram waaye da ko bëgg a bindal ay tuyaaba waaye dafa bëgg a yëkkati itam ay dara jaam kon loolu moo tax nattu bi di am ndax su nattu amul muñ du mën a am juróom-ñeenteel ba su fekkoon ne muñ amul lenn njariñ ludul ne borom bi tabaraka wa taala day ànd ak muñkat yi ci seen muñ googee ñi muñ mu ànd ca ñoom ak ndimbalam ak tawfiixam suñ amul woon leneen luñ mën a jagleel muñ lu dul loolu kon itam loolu moom doy na sëkk tukkeel ba moo di nag laay jii ñu xam ne dafa ñëw di woote woo ña waaye dafa ñëw di dénkaane muñ ak julli kon ma ne alaaya ah, ji loolu yi wone na ne am na ak jote gum jote ak weer wu tedd wi ñu nekk ndax weer wi kat weer muñ la ndax xëy di muñ ca suba ba guddi nga door a dog loolu ak muñ a koy waral bàyyi lépp loo xam ne lu neex la loo xam ne bakkan miinoon na ko waaye weeru julli la itam ndax kenn nattable wut julli yi ak naafila yeeg ya ca aju yooyu ci wii weer ci lay gën a dund kon wastainu bi sabri wa salaati dimbandikoo leen muñ kon ak julli yàlla na ko son borom tabaraka wa taala jàpp nal ci moom jàpp nal ko ci suñuy cër may nu tawfiqi ban koo taxawee ban def la nu ca war kon nu taxawlu foofu incha allah ci bind yi nga xam ne rek dañuy fas yéene mu nekk ci diggante juróomi minute ba ci fukki minute ñu di ko tëj foofa inchaa allah bis bu nekk ndax mu bañ a gudd wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh